taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ziare bu baax ak a ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des mourides mu yàgg fi loolu te wér mbokk yi ni ko ànd ak yéen ca altine ja ca njàlbeenu ay bés ba bu baax léegi fii ci Mauritanie ngir ziaru Sarsara tey ji ci àjjuma nag ñëw nañ ci bërëb bu tedd bile fii nag di bërëb bu am wàccuwaay ci nekkuk Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ci gànnaar di bërëb bu am taarix ni ngeen ko gisee bërëb bi nag nekk bërëb bu bërëb bu tuburanke bërëb bu sori bërëb bu tàng ndax buñ sukk buñ sukkandikoo ci yenn xayma digganteem ak fee di capitalu Mauritanie di Nouakchott toll na ci cent soixante cinq kilomètres loolu tax na nag fii ñu ñëw doon ko ziar mu nekk bërëb boo xam ne nii am na yeneen i bërëb yu fasanti ko na ci nag Serigne Touba Cheikhul Khadim fi nga xam ne nii foofu la sancoon muy këram gannaaw loolu itam fi nga xam ne ni foofu la doon jullee tey ji ñu ngi fi tabax benn juma gannaaw loolu itam ca kanam na la ngeen di seen foofu ci ginnaaw garab yi am na benn teen wax nañ ne accès yàlla goo xam ne ni fa la Serigne Touba Cheikhul Khadim doon uta ndox di jàpp fii ngeen seen nag muy fi ñuy jànge xasida mu mel ni am xunt mu mel ni bërëb la boo xam ne nii wax nañ ne fii la Serigne Touba Cheikhul Khadim jote wér mahfouz minallaahi ci yoxoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax ne kon fii la ko yonent bi fekkoon moo tax gis ngeen bërëb bi suuf si ni mu weexee bu teg yeneen suuf yi nga xam ne nii ñoo nekk fii ci Sarsara fii itam xam ngeen ne moo tax mbokki taalibe yi nekk nii di fi ziar ñi di jàng xasida ñi di jàng alxuraan ñuy xelli café di bernde waaye di waxtaane mbaax Serigne Touba ak nekkam fii ci Sarsara am na fii itam yeneen bërëb yoo xam ne nii ca kanam tuuti la ngeen di seen doomu aadama dem muy ay bërëb maanaam ay xabru na yenn ci doomu aadama yoo xam ne jot nañ leen fee denc kon Sarsara ngi nii ziar Sarsara 2022 Sarsara nekk bërëb bu tedd bërëb bu barkeel bërëb boo xam ne nii Serigne Touba Cheikhul Khadim wéetal boromam liggéeyal yonent bi rek moo ko fi indi woon. bi koy def ak léegi nag ziar bi ren la doon fukki at ak juróom-ñett ñu tuddee ko Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké ibn Khadim Rasoul jëkk koo wuutu nag ci xilaafa gi mbokki taalibe yi bàyyi ko ay réew yu fasantikoo rawatina nag fasantikoo ci ay délégation ñeent yu mag ak ya ci aju ñëw nag ànd ak comité d'organisation bi nekk fii ci Mauritanie ci njiitu Serigne Sidi moom Serigne Mourtada Mbacké waaye nekkal fi xalif général de Mourides ñu amal nag ziar bi ci anam yu mucc ayib ci kanam tuuti nag ñu ngi waajal benn cérémonie boo xam ne nii yenn ci délégation euh, naar yi nga xam ne nii ñoo nekkal fii comme waa Mata Moulana waa ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne daal amoon nañu kóllëre ak Serigne Touba dinañ ñëw teewee.